الانسرام يا قائدا لي من إلهك المرام تبت لربي ظائرا بذنب ذنب لك وقبله أموت بذنب تبت لربي ظائرا بذنب ذنب لك وقبله أموت بذنب تبت لربي ظائرا بذنب ذنب لك وقبله أموت بذنب وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله إمام البرايا كسب سيدنا محمد وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وجه نبي المنتقى المنير ينير قلب كل مستنير أحمدنا المختار لا يباهى عند الذي بالبرايا باها نبينا الأحمد نور الرسل عليهم أزكى الصلاة المرسل نبينا الأحمد نور الأنبياء عليهم أزكى السلام ربيا كتاب أحمد سوى نسى وإنه بخير لن ينسى للمنتقى للمنتقى للمنتقى للمنتقى أنا يبقى سيدنا محمد للمنتقى الذي تقدم سبق ذكر الحكيم من إبليس لبق عليه صلى بسلام صرمدا في الآل والأسباب وكل حمدا للمستوى للمصطفى للمصطفى لدى الإله الواحد نور ينير قلب غير جاحد ku ñëw na nga fexe ba siyaar ji sëñ Abo daal ne man sax damay fas yéene rek bu bis baa ma xool fu mu féete rek ma ma ma ma ma xiblu fa ñaan samay soxla loolu yi nag la yéeg ba dane balaa dara naa dem ci sëñ Abo wax ko ko nag fii la jëm si waaye li li li ko war nee na mooy toog fi sawet dalal la gan yi waaye fi mu ne xalif général de Baye Fall war na faa dem tey war naa demit ci sëñ Alaaji Baara euh, xalifa sëñ Moustapha ak waa kër sëñ Aliou Ndiaye waaye dafa jàpp ne fu mu ci dem rek yow la fa demal ndax Mbàkke yooy yaay yoon wi sëñ Alsaan seet si nga ku bëgg sëñ tuba ku baax ku uf murit yëpp di dindi njàqare démb fii la seex Basirum sëñ Abdou Xaadir toog wax ci moom seere yoo xam ne ñii ñëpp fekke nañ ko njabootam gaa ngi nii sëñ Fàllu Jatara nga xam ne moo fi nekk nekkal fi murit yëpp ak sëñ Xaadim Ndaw ak jarbaatam bii nga xamante ne mooy sëriñ Mbàkke Ñaŋ ñoom boo leen fi fekkoon rek doy na sëkk moo xam fi nga toll ci sëriñ bi mu tollaat foofu nag ci yow kon yaakaar naa loolu rek la euh, sëñ Modou. waaw waaw waaw. <laughs> ba lay sëñ Alsaan dafa seen yéeme yéemul ci ñun rek. yemul ci Touba rek fépp la loolu ngay dégg àdduna yëpp di ko wax sëñ Alsaan dafa yor melaw woo xam ne melaw laabiir woo xam ne melaw ndimbal woo xam ne li ko ci yàlla defal defalu ko ci ñu bari moo tax fu mu toll macha allah kanam rek lay jëm te loo gis rek ba demee ne ba defee ne kanam la ci moom lu ko ëpp ma nga ci kanam nee na yàlla moo ko bind noonu yàlla bu la dimbil dimbali lu mel ni lii mu ko dimbali daf koy jox jikko ju mel ni ji ko jox jikko ji ko yàlla jox ku ko yàlla jox rek yàlla nar na la dimbali àdduna alaxira na nga danañ la ñaanal waaye yow itam nag nanguñ ñaanal bu soobee yàlla fi nga bëgg a yegg yàlla dana la fa yóbbu incha allah jërëjëf yàlla san kàddu yi sëriñ bi dowum daanaka moom ferankulaayu la ndax li wax ci yow municité wax lu góob ndax laabir rek doy na sëkk laabir mooy xajow ñëpp mooy ànd ak ñëpp te rek tax ci sa ndimbal ci sa xel sa taxawaay ndax foo foo dugg ci dëkk bi rek ñëpp ngi lay tudd foo teew rek ñu ne si Assane teewoon na fi dem kon loolu nag teewoo rek teew nii dangay teew teew ci sa xel teew ci sa jëf teew ci sa wax teew ci sa melokaan moo tax nit ñi bëggee la noonu moo tax kàddu yu sëñ bi duñu sori xanaa dalal la jàmm yaatal la waaye nag ñëw nga ci bisub koo xam ne moom mbiram yàlla yaatal na ko lool ñu sëriñ Fallu Mbakke waaw nga ànd ak sëñ bi ñëw seet si ko def nag lu ko neex lool jaar ci kilifaam gu tedd gi sëriñ Abo albaraka mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Fallu te mate ko sëkk te njaboot sëriñ Fallu yëpp ànd ak moom sëñ bi ànd ak moom ànd bu rafet te lépp di ak taalibi nga jaar fo loolu da koy neex lool ci nii nga def ndax dañoo wax ne bunt moom nit bu bañee mbuubam fàttiku ci bunt rek lay jaar moo tax nii nga def neex na sëñ bi lool dégg na ci teewaay bi waaye ñëw nga nag ci bis boo xam ne li ma ci seetlu koo xam ne sa bis daa màgg ba yow mi bis bi màgg nga xam ne daa màgg ba koy màggalal sa bopp loolu kii man la <laughs> bis bi màgg ba mi bi yow mi ko moom nga xam ne daa màgg nga di ko màggal loolu yombut de loolu ak cant rek ko man Sëñ Fall day sant diggam ak borom kon boo ci teewee ni nga ci teewee rek barke yi ci sëñ Fallou dëxëñ ngëm da ko fi jële pas-pas da ko fiy jële ndax alxuraan moo ni ko jàngaloon wala wa anna ahlal xuree amano wa taxaw la fataxna alayhim barakaati mina samaay wal ardi waaye walakin boobu daal li ñu ci bari dañ ko bàyyiwu xel waaye buñ ma bàyyi woon xel li ma def ci àdduna ñu nangu ko nee na barke yi dana wàcc jóge ci asamaan sëñ Fallou nag li yàlla def ci kaw suuf dañ war koo nangu dara ko ci kaw te yow ku la gis xam ne nangu ko mooy sa teewaay bi sëñ bi bëgg na ci bu baax yàlla na nga fi yàgg ñëw yàgg ko fee fekk yàgg ànd ak moom te li mu la yéene lépp te wax ko ñëpp dégg ko nga gis ci lu ko weesoo jot jërëjëf. nee li nga def ay wax la nee na ko xam ne ku ne xam ne li mu doon ku ne xam ne cofee lañ ci biir fonk bis baa ngi ci biir yu baax yu bari ñu ngi ci biir. say jéego yow say wax la moo tax daanaka nañ li ñuy tàmbali rek mu wax ji di di la ziyaara di feddale cofeel gu rëy gu la ëmbal nga nga ëmbal ma ko saa yu ñu waxantee rek sa wax kàddu yu njiitu rek mooy namm nañu la xam nga su ma demee ba am loolu ci yow lu rëy la ci rawatina nag jamono ji yàlla tàbbal ma ci ci Touba démb ba léegi ñu am mbégte xam ne ñu ngi ñëw ci yow muy ay feddalante yaa lépp loo xamante ne mu ngi may dal ci yoon bi loo loo waxoon la mm-hmm. waaw man ñëw naa fi gisoon ngeen ma ñëwaat naa fi gisaat ngeen ma ma fi ñëw ba tey ngeen gisaat ma ku wàññeeku xam nga ku yokku xam nga te yaa ko fi waxoon sama waajur wu jigéen jàpp ko ndax benn vidéo boo wax ne dafa mel ni almet nga sunu xose tàkk-tàkk ba cofeel googu nag sëriñ bi daanaka ñi la ko ëmbal ci réew mi bari nañu fa ma dëkkee fële ci almadi mbooleem sa taali bi ñu ngi saytu sama kaarange ndax xam cofeel gi nga ma ëmbal ba cinq cent mètres ci périmètre ñëpp ma jox gëdd ndax sa jëmm maa ngi lay sant bu wér di la wax ne nag leen rek laa bëggoon nga téye ko aajowul tontu xarit lu mu ne war na ko wax soppeem maa ngi taxaw temb ut ut réew mi dama la ko wax nga nga dégg ko rek lii rek laa bëgg nga dégg ko waaw waaw moo tax ma ne na ko dégg rek ndax moom njaaxaanaay la tëddee ku nekk ci réew mi rek bëgg naa am lante ak yow ñi ñi jiitu ak ñi bëgg toog seeni siis man soppe la war naa rek yëgal la te

nga wane ñu gis ko dafa doy tegtal ndax nit ku nekk dafa am luy tegtalu ci moom moom nga xam ne moom la ñuy xamee ni kii lii la waaye yow day am nañ ci yow de nee na baat bi nga xam ne boo ko waxee lu wër cee tontu nga yëgal ko rek mu bàyyi noonu waaye nee nag li nga wax mënu cee ñàkk sànni ay baat kàddu yi ma ci sànni mooy yi nga xam ne moo nekk rek melaw ku mën a yor am réew melaw ku mën a yor ay réew sax waxuma benn moom nga yor baax ci nit ñi yërëm leen bëgg leen yéene leen ñu am jàmm lu nga leen ko defal loolu rek sëñ Alassane mooy si liggéey moo la ba nga yegg si nga toll sa melo rek la ko yóbbu say jikko rek li nga bëgg nag ñoo ngi ñaan ci yàlla nga am ko ni ko bëggee rek Macky ku bëgg ngi nii mm-hmm. koo xam ni cofeel gi mu am ci yow nit ñi ànd ak moom ñëpp maase nañu xam ni Cheikh Alassane ku bëgg Cheikh Abdou Karim lii mu wax moo wér bi mu fii ñëw xam nga lépp mu ñëwaat ñëwaat am fu mu toll nga am loo wax ci moom bu ñun ñëpp di ko waxtaan te moom mii samp gii mu samp sëriñ fallu nag bari nañu mu samp te yaay sëriñ fallu tey Mbàkke amunu ku dul maam moom rek lañu bëgg yaa ko wax daf ñuy yërëm daf ñuy dimbali ñu ñëpp ci nag ak ci biti coalition nag la àndal boo xam ni muy jàmmi réew mi jàmmi réew mi moom la tudd ja jàmmi réew mi ci jàmm rek nee na daal na dugg ci sa nopp Mbàkke xam na li mu wax ne xam na li mu wax ndindi gii de sëriñ bi sëñ Fall dafay jëmbal lu baax lu ne bu dee jàng alxuraan bu dee julli bu dee woor bu dee julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dimbali koo xam ne gannaaw amiin amiin Mbacke. jërëjëf sëñ bi waaw waaw na amatul lu ci teg sant rek di la sant bu wér di ñaan yàlla nga yàgg fi te ànd ak wér. bëgg naa ni Senghor defoon Abdou Diouf def ko maître Abdoulaye def ko. meftal am lu ci jéem am naa sañ-sañ ak yéene bëgg naa mantam liggéeyal seexul xadim ni tali bi ñëwee fii muy ilaa Touba am naa yéene roptaan di wàcc fii ci Touba aéroport international bu seexul xadim bëgg naa buntu Touba mu dàq ci bunt yi nekk ci mond bi yëpp bëgg naa ko bëgg naa musée bu Seyxul Xadim mu dàq ci mond bi ba musée ba lu fiy jënd ci koom mu tax mu tabax TCP bu jógee Saint-Louis jëm Ziguinchor bi ma jógee ci yow sama ñaareelu yoon na ma yàlla samp ma jiite fii ci réewu naar yi benn daje boo xam ne dañuy xalaat naka la àdduna bi wala doxee ëllëg ñeenti weer laa ci def ñu ne ma léegi kat kaay jiite ñu loolu ci sa barke la amee loolu yàlla kat dëgg la bëgg wax nga ma ko koy bu baax nee nga may wax nga ma ñëwoon nga fi ñëwaat naa fi ñëwaat naa fi ñëw naa fi tey waaye xam na ñëw bi wuti na ko <laughs> jërëjëf nee fi nga bëgg a yegg rek yàlla yóbbu la fa